dal leen ak jàmm corobal ba kii mi kenn dootul présenté kenn ci Sénégal tasatinab sëyam ginnaaw ñetteelu mariage pour ñi ko xamul nag Tactic TV dina leen xamale ak moom moom xale bu jigéen bi histoireu Sénégal dootu ko fàtte jàpp leen ma limal leen corobal ba kii nekkoon na fi ab mannequin ginnaaw bi mu nekk fi Miss Dakar waaye tamit nekkoon ab animatrice bu ràññeeku lool waaye tamit ñu bëri xamoon ko ci wàllum jet set maanaam doon fréquenté bërëb yi nga xamante ni bakkane na loolu te nekk ci biir réewum Sénégal muy restaurant boîte de nuit wala sax club réservé waaye leneen li tax ba histoire dootu ko fàtte moom Thioro Balbaki nekk na xale bu jigéen boo xamante ni tas na sëyam ñetti yoon bank leen seeni baalaam ma limal leen mariage am bu njëkk moom coro mu ngi ko doon sëyëg ak benn moodu moodu bu nekk ca Italie buy wuyoo ci turu Amet Ndoy ñoom ñaax ci atum 2018 lañ daal di tàggalikoo ginnaaw divorce am bu njëkk bi nekk bu mel ni coro du jigéen boo xamante ni day some ndax ci weeru septembre ci même année bi maanaam 2018 ci la amaat beneen jëkk jëkkër daal di nekk madame Thiam waaye nag mu mel ni gile madame Thiam du yàgg ndax ñaari at képp lañ ci tegaat coro daal di tas sëyam tasar li nag mooy kaw kaawteef dëgg-dëgg ndax ci ñetti at kese ci la coro marié ñetti yoon waaye daal ciy tas ñetti yoon bile yoon nag coro ki mujjee woon na sëyal di ab sénégalais bu nekk foofee ci réewum France ci ginnaaw bi sax la mannequin bi daal di bàyyeekoo fii ci Sénégal dem fekki jëkkëram jooje waaye nag li doon ñuul ci soow mi moo di famille jëkkër ji ja ay weer rek nag ginnaaw mariage bi bile Linda Mayel daal di mujjee nekk ab Linda Fiel ba tax ñaar ñi bëggante woon lool mujjee nekk ci ab xiiroo akum ŋaayoo bu metti coow yu bëri yooyu sax taxoon ba borom këram bi bëggoon mu daal di ñibbisiwaat fii ci réewum Sénégal waaye nag coro ni ko du ci dal fii laay toog dewuma damay toog fii ci réewum Macron lile moo waral ba ñoom ñaar seenub sëy daal di tas ginnaaw seenub divorce ñoom ñaar nag kii di coro ak yaayam dañoo sàkk woon ci monsieur Thiam mu daal leen ni bàyyi ñu dëkk ca biir këram confinement bi jàll ndax ñu mën a wuti ab appartement mu nekk ab mbir moo xamante ni kii di monsieur Thiam nangu woon na ko li ci doy waar nag mooy ginnaaw bàyyi gi mu leen bàyyi ci biir këram coro moom dafa doon tëb fenêtre yàq miir ya la ko feeñal nag moo di caméra de surveillance ya kaw tëf fii la ñuy yem ak yéen Tactic TV dina leen toppal mbir mii ba fu mu yem jërë ngeen jëf